club bii ñu naan Estoril fa la doomu Sénégal bi xaatim contrat ba atum deux mille vingt cinq Estoril nag ma nga ca Ligue 1 bu Portugal. ci fàttali moor Ndiaye mi vingt et képp la am milieu défensif bu mën la muy def la kon ñaanal leen doomu Thiès bi mu doxal ca Ligue 1 bu Portugal club bii di Estoril ñoo ko jël yóbbu ko foofee ngir mu jàppale leen ñaanal leen Mor Ndiaye mu doxal ca club boobee ndax ku football am ci moom yaakaar la. ñu jugee ci moor Ndiaye jël doomu Sénégal bii di Lamine xaatim na kontra ci club bii di Ankara Guccu Ankara Guccu nag ma nga ca Turquie xaatim na fa contrat wu ñetti at ak benn at boo xamante ni su ñetti at ya jeexee su fekkee neex na ko mu yokk beneen at muy ñeenti at loolee la xaatim ca Ankara Guccu Ankara Guccu nag ca deuxième division bu Turquie fa la nekk ci fàttali doomu Sénégal bi ndaw la vingt-et-un képp la am te ku football am ci moom yaakaar la moom fii ci Sénégal la ñu ko formé ca Ndakaaru ca Oslo FC formé doomu Sénégal bi kon ñaanal leen ko mu doxal ca deuxième division bu Turquie muy Lamine Diack ñu jugee ci Lamine Diack jël doomu Égypte bii di Gabaski ki nag sénégalais yëpp war nañu koo xàmmi moom nag mu nga doon football ca championnat boobee nga xam ne fa dëkk muy championnat bu Égypte club bu ñu naan Zamalek waaye jamono ji nag contraam jeex na tàkk foofee dafay jugee ca club boobee jamono ji doomu Égypte bi mu ngay wër club boo xam ne mën na fa xaatim contrat waaye digganteem ak Zamalek diggante boobee jeex na tàkk ñu jugee ci gabaski jël doomu Portugal bii di Cristiano Ronaldo bu ñu sukkandikoo ci sa Athletic tey jii la ñuy xaar Cristiano Ronaldo ca Angleterre mu jugee ca Portugal nga mu doon defee ay vacances wutali Angleterre ci club bi ñu naan Manchester United xam ngeen ne fala la doomu Portugal bi nekk waaye sa Athletic nee na Cristiano Ronaldo daal jamono jii léttagul waa Manchester fireegul leen ndax ëllëgëm daal jamono ji ba léegi dafa lëndëm suba am du entraînement loolee kenn mënu caa wax dara ndax Cristiano Ronaldo waxu ca dara sa atlétique li mu xamle moo di Cristiano Ronaldo bu yeggee tey jii ci guddi gi ca Angleterre la muy njëkk a def su yeewoo moo di toog ak waa seer United ngir waxtaanee ëllëgëm ëllëg googee nag ñu nar a waxtaanee kenn xamagu ca dara day toog ca club boobee am day jógee ca club boobe waaye dara du leen ci ump avec King Ouse Ngary TV dinañ leen toppal xibaar boobee incha Ronaldo waaye waa Manchester United duñ leen bàyyeegum bu ñu sukkandikoo ci Sky Sport plan B wu Manchester United moo di Milankovic Savic mi nga xam ne ma ngay football ca Lazio de Rome ñoom li ñu bëgg moo di su fekkee mënuñoo am De Jong mi nga xam ne ma nga ca Barcelone li ñu bëgg moo di dem jëli Milankovic Savic mi nga xam ne mën na lool la muy def waaye nag loolee lépp su fekkee kii di De ñëwul foofee li ñu bëgg moo di dem waxtaan ak waa Lazio de Rome xool nu ñuy def ba jub juboo ak waa Lazio de Rome Milankovic Savic si jógee ca Lazio dem ca Manchester United jàppale leen ca milieu de terrain ba xibaar boobee sa Athletic moo ko xamle ñu jugee ci Milankovic Savic si jël doomu Italie bi di Sakamaka gone gi nag ma nga woon ca Sassuolo loolee la ñu mën a wax ndax jamono ji doomu Italie bi ma nga ca Angleterre ngir xaatim contrat ca West Ham jamono jii may wax ak yéen doomu Italie bi ma nga ca Angleterre photo boobu ngeen di gis léegi ci ngoon si moo mu def visite médical su lépp yembee mu xaatim contrat wu juróomi at ci club bii di West Ham la ñu ko jëndee nag mi ngi toll ci trente six millions d'euros ak six millions yoo xam ne bonus la waaye su fekkee waa West dañ koy jaay ci diggante bi waa Sassuolo am nañu ca dix pour cent jamono ji la ca des pour mu officiel bëriwul kon kat bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu am yépp Saka Maka mi déwén incha allah ca Premier League bi lay football Paris nag bëggoon na ko ba sori ca waaye jamono gi ca West Ham ñu jugee ci sakamaka jël doomu Espagne bi di Oscar Mingueza bu ñu sukkandikoo ci sport Barcelone li mu ko xamal moo di dañu lay jaay loole sax club yi ba ñu ko déggee ña ngay daw wutali ko muy club yi nekk ca Liga Santander ba Celta de Vigo bëgg na ko Real Valladolid bëgg na ko Girona tamit bëgg nañu Mingueza ba ca Xetafe waaye yemul ci club yooye rekk nekk ci Liga Santander ba ndax ca Turki tamit club bu ñu naan Galatasaray mi ngi bàyyi